dal leen ak jàmm ci la yéen kay xëy gën tey ci Rewmi FM Le Témoin tey jii la juróom-ñaari saas yu conseil constitutionnel la war a joxe résultat définitif yu élection législative yi doon amal ci réew bu Sénégal ni ki fanweeri fan ci weeru sulet bi ñu génn tey ji la yéen kaabile moo xam ñi fare ci nguur gi wala ñi fare ci ko jigi ñoom ñëpp ni ki tey ji ñi ngi may nopp conseil constitutionnel ngir xool dëgg-dëgg yan résultat lay fésal ci élection législative yooyu léegi gannaaw bi xam ne bi ñu faree ci opposition bi di déngal élection yeeg naan ay rëq-rëq yu bëri ñoo ci am ba nañu ko defaat jamono ji nga xam ne ñu faree ci nguur gi bootu ci benn bokk yaakaar ñoom itam di sàkko lu jëm ci élection yi ci département bu Ndakaaru ñu neenal ko yi ni kaay bi recours nag tax na ba tey jëlee conseil constitutionnel war leen a attey attekat yi ci union des magistrats du ba ñaar fukki fan ci weeru ut bi ñu dëgmal la ñu war a tab kii war a jiite seen kuréel googale gannaaw ki ko jiite woon di atteekat bii di Maguette Diop moom Maguette Diop ci boppam yéen i kaabi la donte ne bëgg naa amaat beneen mandat di ñaareelu mandat waaye am na ñaari atteekat yoo xam ne ñoom itam samp nañ seen ndënd ngir jiite Union des magistrats du Sénégal bokk na ci atteekat yooyu lay Mariam Diop di koo xam ne kii moom itam ko am taxawaay loolu la ci magistrature ak kii di Souleymane Teliko ne koo xam ne kii moom ko fees loolu la rota lu jëm ci taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ñu daal di génn ci diggante moo kilifa yi gannaaw a mu doon dingat lu jëm ci mbirum consultation à domicile ñetti candidat yi ni kabi na ñoo samp seen dend ngir jiite union des magistrats du Sénégal bu ñu xamagul ci ñetti candidat yooyu lay kan moo ci jiite kuréel googu di UMS e Thiès kuréel gi moom di fédération sénégalaise de football moom xam nañu kenn moo ko jiite gannaaw assemblée générale bi ñu doon amal ni ki gaaw ñetti kandidat ñoom itam sampoon nañ seen ndënd bokkoon na ci maître Augustin Senghor Mbaye Diouf Diaba ci Louis Lamotte tey jëlee Vox Populi observateur ak les échos ne ba ñu dem ba ca cappaandaw ga kii de maître Augustin Senghor ma ko jiite woon moom la ñu tabaat mu jiite ko gannaaw ba ñu demee sax ci deuxième tour bi diggante mook Mbaye Diouf Dia yéen i kaabile maître Augustin Senghor askan wa nañ ko fédération sénégalaise cause de football tey jëlee moom Maître Augustin Senghor ne mi ngi tàllal la loxo mboolem ñi nga xam ne sax doon na xëccoog ñoom waaye di tàllal loxo tamit mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbirum football bi ngir fexe ba football gi ñu gën koo yëkkatiwaat li ñu yëkkati woon doon cee wax waaye ba fi ñu toll ni dara leeru ko ci wàllu yoon mooy faatuug ndem si yàlla Basirou Faye étudiant Walf Quotidien Bassirou Faye kay ba mu faatoo ko léegi daanaka dara leeru ci donte ne sax kenn kin ci doon joxañ baaraamu tuuma di policier bii di Bougal Lepp yoon ci boppam daan na ko ñaar fukki ati kaso waaye dafa dafa appel ngir déngat ko avocat mi ci boppam ba fi ñu toll nii ña ngay dëgg-dëgg seen appel boobu lay lan ci yoon di wax ñu wax ci congu gu métti gi nga xam ne gi daanaka yéen kay yu bëri xëy nañ ci tey mooy congu ga am ca Burkina Faso day ne ñoo fa song benn restaurant boo xam ne mbooloo mu takkoo takk ñoo fa nekkoon las tey congo googale ñu amal ca Burkina Faso lu toll ci fukk ak juróom-ñetti doomu adama lu mu néew néew ñàkk ci seen bakkan ba noppi ñu bëree bëri jëlee ci ay gaañu gaañu congo gi lee yéen cabinet duggule tënk ñu koy def ca Burkina Faso ca ña ko di ay terroriste yéen cabinet am na ci ñaar ñoo xam ne ñi teg nañu leen loxo moom ba fi ñu toll ni tegaguñ ko loxo te am leneen lu ci yees Dakar Times ne mooy mbirum Petrotim ak banque bu rapport boobu la yéen kaay bi la OFNAC ci boppam moo ci joggi tànkam ki teg tànkam dëgg-dëgg ba tey jile ñu koy waxtaanee ci ndorteelu lu njëkk ca Paris Saint-Germain mooy Neymar sa yéen kaay la Neymar ci boom kay wane la dëgg-dëgg nag ci jongante bi doxoon ci diggante équipe bam boobu lay di Paris Saint-Germain ak Guingamp ñetti bal ci dara te ñetti bal yooyu yéen kaay bi ne Neymar ci boppam dugal na bit bu njëkkam passe benn bit ba noppi wane boppam